man sama bàmmeel laa taxaw man lépp lu may wax rek damay bëgg di ko waxaat fii dëkku jokkul lañ ne dëkku Rufisque lañ ne dëkku lébu fii ku la lebal lu baax rek moom nga mën a taxaw tey soutenir ko li may wax nag du pour tey ñetti option laay wax benn bi sama nijaay Sugu Diop yàlla ko yàlla yërëm xaaral bi ma gën a nekk xale di bëri ay petit combat aw boobu dara. maar mooy génn ay kaar jox ma pour jokkul mën a dem entraînement laa jógee tëdd julli doon récupéré su ma yaay woo ma ma ne maar rek lebal na ma loo xamante ni boobu xale laa te dinaa ko fay tey yàlla def loolu ñu koy dunde di ko dunde mu dëkk a jokkul te mënoon naa wax ne Tëngéej bari na ay mbër dëgg la bari na ay mbër mais fii yàlla dogal man la dogal ma doon fi mbër mu mag ñoom ñëpp sama ginnaaw la ñoom ñoom ma uuf leen tete leen ba tey ñu nekk ci maar fan yële passé dama jóge États-Unis ñëw sama combat ñu renvoyé ko ma dem ba benn instant bi manqué xaalis ma ñëw ci moom naka maar mënu naa ma naka ma dama war a dellu États-Unis te instant bi li ma yoroon dépensé naa ko si mystique dépensé naa ko si entraîneur ci lépp mu bindal ma segu cinq cent mille te doomi góor laa doomi jullit laa mu jàppale ma amay la ma tudd rek waaw mu dooleel ma taxawu ma suñ ikiri lépp gi papa mooy kilifa gi mooy daj dëkk gi di ñaanal yàlla defal ko jàmm ndax dafa feebar maar moo jël ay matériel yóbbu ko ci salle bi dooleel noonu amuñu kenn ku moom damay wax dëgg ku dee sa man ku ma lebal lu baax ma fay la ku ma lebal aron ceer man yàlla laa gëm ak samay waajur rasulullah mu taxawunu nag dooleel nu deuxième option bi mooy bi dara doonul dara ñëpp xam nañ ne mamba la ndooy na ma wan moo ma teete wan ma yoon jàppale ma dooleel ma waaw xam nga waaw mamba la nag doon koo xamante ni ci man yaakaar naa senegaal boobu metti na mu téye ma tette ma ba tey ma bokk ci faneen amul lenn lu may def ci àddina te Mamba la démb rek këram laa nekk fa laa yenn moom nag tawat moo ko taxa ñàkk bañ a teew fii xam nga Mamba lu mu dugg lu nekk ñëpp dugg ci ndax moom doon na koo xamante ni nit ku dëggu la te ci dëkk bi la dëkk ku ko ku ku fi gënul gënoo ko dëgg la léegi beneen bi may wax mooy nun yow lañ am pour si gatal na xam nga la ma nun yow lañ am man sama yaay si politique la juddo Moussa Diaway bayam bu àndeex yow warna naa mën a yow te aduna fi politique amul xassante ay mbokk la ñuy toog fii ñëpp ay mbokk la ñoo bokk deug ben gox jokul kon kenn ñu xar ñaar ku nekk fi nga sentir gis la sa ndariñ fa ngay dem man nak mosoo ma ah, taxaw fi man politique wu ma kenn ndax dépassé naa ay topp si nit di daw wala c'est-à-dire damay defar sama avenir ngir ëllëg samay waaju ak sama njaboot yow nag dañu jik loo xamante ni maanaam buñ taxawul fii duñ gor beneen bi maa ngi maa ngi maa ngi ñaanal mamaya Badara mamaya seen yàlla yërëm ko man moom utal salaire mais yow igri bi mbër yi fi nekk ñëpp utal nga leen salaire man dafa mel ni waaw bu utalee igiri lébu gi mbëri ay salaire mu ngi mel ni man utal nga ma salaire ndax su may raka lañ kon donc loolu noonu jàpp ko nga xam ne ndox bu bàyyi yoonam dóoral dóoraat ñu taxaw sa ginnaaw soutenir la ndax jokkul moo la tax a jóg ak tëngéej yaa may dégg nun nag ragalunu nun yow lañ àndala ah, man dama paar man yow laa àndal man man wiiruwuma jaar nax xam nga la moo tax ma wax la li ma la man nëbbatuwuma man sama kilifa yow la àndal muy Mambala te bu na ma demal fii géej léegi ma dem géej bu na ma yow la àndal man yow laa àndal mu neex na xarit. kooku sama yaay ji. waaw. niñ toogee nii ñëpp mobilisé wu kii la tax a jóg nga dem jël fotaam jël lépp léppaam dem dugal ndax dëj dëpp gi après la dëj dëpp gi après la wax ji neex na torop mais dëj dëpp gi mooy gëm-gëm dem wasal na maar moo la tax a jóg dem wasal ko yàlla dafa ko jàmm